kon nag dañuy bañ a bokk ci ñi nga xam ne nag bu ñu yàlla mayee dara wala mu teg ñu dara rek suñu nappee ci loolu ñu fàtte ko li taxoon nag tey ñu daje fii woolu presse bi woolu ñenn ci nit ñi. dañuy def point de presse pour lancer benn mouvement mouvement boo xam ne mi ngi tudd jóg jot na yaakaar naa ne ku nekk ci réew mi ak nga nekk bitim réew war ngaa xam ne situation réew mi ñu nekk jóg jot na ci Baye Modou leeral na ko léegi. muy ay ndaw yu am pas-pas yu am taxawaay yu bëgg seen réew rawatina nag gox bi ñu nekk muy Touba ñu waxtaan xalaat na kat lii nga xam ne réew maa ngi koy doxee léegi su ñu toogee ci seetaan ëllëg la daloon ña ña suñu borom di wax ci alxuraan daf ñuy dal parce que yàlla nee na bu lu bu lu ñaaw amee wala jafe-jafe am wala lu mu mën a doon wóorut te nga mën caa wax mbaa nga mën caa dox wóoroo bokk ci ñooy seetaan. boo liggéey soo bokkoo ci ñuy seetaan lu mu leen di teg ñoom ñoom ñoo ko def yow mi waroon na wax te waxoo mbaa yow mi waroon na def te doo dina dinaa la boole ci li nga xam te moom laa leen teg. loolu nag tax na naa ne ndawi dëkk bi suñu waxee ndawi dëkk bi nag mooy ñi nga xam ne ñoo ko xalaat waaye ñëpp ñoo ci bokk su fekkoon dañuy woote pour mbooloo wala dañuy woote pour li ñu yàlla may ci ay nit wala ñu ñu bokkal pas-pas wala ñu bokkal yéene. mënuñoo joxe misaal fan lañ mën a wan a wootee ci Touba Gueye département bi noonu waaye nag lii day loo xam ne nag lu juddu la ñu war koo woon Sénégalais yi wane ne ah, la ngeen la ngeen doon jàmbat wala la ngeen doon séentu at yëpp wala la ngeen doon séentu weer wi yëpp sunu borom andi na ko muy benn mouvement boo xam ne dafay taxaw ngir lépp loo xam ne soxla askan wi la. askan wi nag génn wuñ ci kenn Sénégal la wax fu ab sénégalais mën a nekk rek ci nga bokk. waaye sooy tàmbali nag da ngay tàmbali fi nga xam te ni fi nga nekk mooy Touba gi ñu nekk li li xew Touba ci wàllu jafe-jafe mag ñi ci wàllu jafe-jafe ndaw ñi ci wàllu jafe-jafe soxna yi kenn umpaleetu ko loolu ñëpp ñëpp leer nañu loolu nag moo ñu tax a jóg dootuñ seetaan lenn loo xam ne lu wërta am la wala ñuy seetaan lenn loo xam ne war na fee am te du te duñ ko fi indi loolu bokk na ci point yi nga xam ne moom moo ñu tax a jóg te loolu lu am solo la ci lu am solo la ci ci ci mouvement bi mouvement bi nag mi ngi tudd jóg jot na dañoo bëgg nag mu wi aw turam ndax jamono moo ko yëkkati jamono moo toll foo xam ne jóg dafa jot moo tax ñu ñu xalaat loolu tuddee ko mouvement jóg jot na li tax ñu jóg nag am na ñu ko leeral léegi waaye duma ci tàyyi di ci wax ndax wax dëgg yàlla ku nu xam xam nga xam nga nu ak Touba ku nu xam xam nga nu ak sone si Touba ku xam-xam nga nu ak ndawi Touba ku xam-xam nga tamit ak magi Touba muy loo xam ne nag yàlla ñu ko defal ñu doon ne ko nag ci sunu waajur Cheikh Modou Lamine ku ko xam-xam na ne eh, dimbali nit ci soxla soo xam te ni dëppoo nag bëgg-bëggu islaam kenn mënu ko ci woon. yàlla dogal bi nu màggee mu ñu ne ci wetam nag mu ñu ci mu ñu ciy doxloo nag nampatal ñu ci ba ko fi suñu borom jëlee it ñu téye loola di ci dox yàlla dimbali nit li ñuy wax ni waxuñu pour tàgg suñu bopp. waaye lu am na loo xam ni képp ku ku dëkk Touba wala nga xam nga xam nga xam nga xam ni nuy doxe ci Touba loolu mën nga ko sa bopp. lu ne am na ci dëkk bi tur wu mel nii wu ne am na fi waaye ñu xam na nag léegi nag borom yëf yi ñëw na téye yëf yi boppam. loolu na na leer seen bopp te ñoom ñi nga xam ni ñoom laay waxal xam nañ li nu yàlla may ci Touba xam nañ ni ñu jaxasook ni ci Touba fu ne nag ñu ngi fay dégg nit di ñëw waaye nanu xam na nag. ki suñu bo ki nekkoon nag nit ñi vingt cinq ans ci ginnaaw wala vingt ans ci ginnaaw. moo ñëw tey nag ngir taxaw. ñëpp xam na ne nag kon léegi borom yëf yi ñëw na. gétt gi daa tasaaroo. fenn fu nekk mënees naa wax ne ak jur jaar fa. borom gétt gi ñëw na nag dajalewaat ak juróom ba keneen ku ëllëg ku dugg ci gétt gi. danga tàgg borom gétt gi. loolu ma bëgg naa Sénégal yëpp xam ko te incha allahu rabbi loolu ci kanam dana leer waaye kenn ku nekk xam na jamono yi ñi ñuy waxee ak yéen jóg jot na toogaay amatul. donte toogaay nag warul mu warul mos mosul woon am waaye jamono ji moo ci raw nag gis ngeen li xew ci réew mi bu dee ci wàllu politique bi bu dee ci wàllu jikko yi bu dee ci wàllu néew ji doole ji bu dee ci wàllu nangam bu dee ci wàllu nangam. kon dundu gu seer geeg lépp warees naa xam ne kon léegi jóg jot na. loolu moo waral nag ñu jóg fas yéene na nag ànd ak mbooloo mépp muy waa Touba ak waa Mbacké mën naa ne ak waa Sénégal ak waa bitim réew parce que boo demee dakaar am na ñu fa nekk. secteur bu nekk am na ñu fa nekk nga dem bitim réew am na ñoo xam ne incha allah rabbi fa nii bu suñu borom tuddee dana nu fa dem ngir gën faa sampu liggéey bi yaatal ko ba kenn ku nekk man cee man cee gis sa bopp. ndax ñun bu ñuy liggéey dañuy liggéey pour Sénégal yëpp dañoo ñaan yàlla it yàlla may ñu doole joo xam ne danañuy dem ba ëllëg fu fu ab sénégalais mën a nekk bu amee ay jafe-jafe bu dee koo xam ne war a taal sa ah, oto nga dem. bu dee da ngaa war a dugg avion nga dugg bu dee da war a dox nga dem lijjanti sénégalais yooyu moo tax ñun lépp loo xamante ni ñu ngi fi fas nañ yéene sénégalais bu ko soxla rek ñu taxaw ngir mën leen a jàppale ci loolu. waaw mouvement bi Ablaye politique la mais autrement politique la parce que loolu kenn mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko expliquer waaye nag ni ñu xamee politique ba ñu bari seexlu ko doxewuñ noonu moo tax ñu tëddee ko dañuy politique gaa mais autrement la nag. te suñ toogaay bii du tax ñuy wax loo xam ne ëllëg suñu tëddee suñu bàmmeel ñun leen dañ ko layoo ku nu xam xam na ne mosuñoo ñàkk taxaw ngir ngir jeunesse bi waaye mosuñoo ñàkk taxaw ngir askan wi. loolu nag dañoo dem ba xam ne nag lii war na caa mën a juddoo moo tax ñu ñu ñu wutal ko ndey wutal ko bàyyi jaarale ko fu ñu ko war a jaaleel ba mu judd waaye ñun naka jekk ci askan wi la ñuy xëy ci askan wi la ñuy gont ku xam-xam nga ñu ci diggante intervention ku nu nga ñu ci nangam ku nu xam-xam ñu ci di ko tudd waaye lépp loo xam ne soxla doomu aadama la mu dëpp ak bëgg-bëgg lislaam ku nu mas a xam ci dëkk bii gis sunu kanam yi danga ne kii li muy lu am la ndax loolu ci lañu nekk ba si jiitu moom mooy li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Sénégal budget bi Sénégal yëpp ñoo ko moom. tuubaa kenn ku nekk xam na ne li nga xam te ni moom moom lañ fi am nii un tiers bi sax Touba amu ko te loolu li ko waral mooy ñi nga xam te ni bu ñuy dugal dara tuubaa ñooñu lañ koy jaarale ci seen loxo 99 pour cent yi ñoo bloqué loolu waaye nañu xam ne fii léegi duñu ne kenn dootu lekk de waaye kenn dootu fi mën a lekk mu rees da kenn du la ko wax duñ tee nag kenn lekk waaye lekk mu rees ci jàmm moom ci loo wurta lekk jeex na fi moom dootu fi am képp lépp loo xam askan wee ko moom kenn dootu ko jël di ko séddoo loolu moom sax su fi moom loolu moom jeex na waa xam nga député moom lu baax la cim réew waaye nag ni Sénégal di doxee moom boo amul majorité daanaka da nga fay toog rek parce que temps de parole bi ngay am boo nekkul député sax moo xam ci comme yu mel ne yéen jàppandal yu mel ne journaliste yi wala yeneen yeneen organes yi soo nekkee assemblée sax ay minutes ngay am kon képp koo xam ne ne nga da bëgg a taxaw askan wi wóoroo rek yootu député député moom boo amul majorité ci réew mi daanaka député gi amul njariñ su fekkee dangay ngay taxaw askan wi nag danga koy commencé ci façon bi nga mënee comme bii ñu tàmbalee commencé ko ci suuf di màgg di màgg ba egg fii ñu egg tey donc kon ñun taxaw askan wi ñu tax a jóg député taxu ñoo jóg parce que député ñëpp munuñ ko am mais dañoo bëgg a fexe nag képp koo xamante nii yor nga réew mi mbaa nga parce que yéene yor looy wax da nga ñu ci boole looy dugg te bu ñu te bu ñu ci boole rek ñëpp bokk ci ndax ñun ñëpp ñu suñu ginaaw